gars yi képp kuy influenceur te mos taf C50 PN bii nii nii nii bu yeboo nag nga génn wax dëgg bi quoi war na alxuraan karim ndax président Ousmane Sonko jàppoon nañ ko fi influenceur yëpp di topp président Ousmane Sonko comprendre man nag lii xaw ni affaire de politique la quoi parce man su ko xamoon man man Fallou man cent ans dimanche su ma fay ay milliards du ma si mës a mës a mës yi salaamaaleykum gars yi ñoo déggandoo fàllu gaa ñaa ngi commencé di retirer seeni i contrat ndax xam na nekkul ñu ci yoon jeunesse baa ngi leen commencé sonal mami ko nag ba mu yëgee rek ñii ñi ngi démissionné daf ma vocal ne ma léex ñii xanaa da doon def ñuy démissionné ah lu tax ñuy démissionné nit ñaa ngi waaj a yokk deux cent soixante la woon mais léegi ñu ngi yegg quatre cent mais loolu mënuma koo gëm parce que ñoom danoo commencé yàqu la ma mi ko li ma wax mënuma koo gëm man 10 millions naan ma tegal 15 millions naan ma Ablaye Sylla nit ku baax la ma saagal la fal pour li ngeen ma xamul jaay naa ko 15 millions mi ngi tege pour wax ji jeex nim naan ay 400 personnes amaan nañ ko 600 personnes ak yooyu du dëgg man aaduma xanaa sénégalais yëmeewul man noonu gis li may doxalee ñii ngay dem di ci dugaat dofuñu jinne jàpp leen sénégalais yi xam ne aadama lu nu dof dof xam ne kon lii mënuma koo gëm yéenewul sax maanaa li ma leen di wax mooy takku leen ba dëgër xaar ku deful comme ñoom gëy stress jéggalu sénégalais yi toog wax lu leer ci taabal ji di jaay affaire Orange ñu tepp seen lëfal ndey nag déglu vocalu mamiko yi barki yàlla billaahi influenceur yokku dañ léegi quatre cent lay xaaral xaaral da ne am na ñuy posté lundi mardi jeudi xaaral di nga gis ñu bees tàq aadamoo yow kii daa dof bay démissionné ñu def ñu de deux cent trente influenceurs lañ woon eh? tey jii nii nii information yi ma jot ñu ngi ci quatre cent influenceurs. yow Ablaye Sylla am mille huit cent employés mille huit cent employés bu ci nekk bu ko indilee vingt parrainage ay parrainage en wér yéen wér ngeen est que yow est-ce est-ce que yow xam nga vraiment kan mooy si Sylla xam nga nag booy xeex ni da dem gëstu ji ko xam mooy kan xamoo ko de. xamoo Abdoulaye Sylla mi nga xam ne moo tabax autoroute Ila Touba xamoo Abdoulaye Sylla nag sama waa ji ndaa naan la nag de la rëq rek lay def. Abdoulaye Sylla du lafal ndeyam maa ngi jéggalu ci saaga yi Abdoulaye Sylla du dara dara nekk ko ñii Amadou Ba leen di topp ñii di topp ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko. parrainage yi lay sàcc ngeen di dugg ci kër mairie di jël ay carte d'identité ko jox ay nit naan di ni wutal ay pièces xaalis bi ngay joxe ci kaw. ci kaw nga koy joxe doo laaj carte d'identité mais boo wàccee ba si suuf nga leen koy laaj mami ko may ma jàmm bu may. yéen a ngi diglu man damaa dëgg bu ma bëggoon xaalis jamono jii maa téye affaire yi man la ñuy fay mais defuma loolu jeunesse bi nag jàppaleel ma ci combat bi CP lu couleur couleur yooyu foo ko gis dugal leen seen lëfal ndeyam jeunesse bu dof dof lu ba dugg ci lii dinaa xëddee sa lëfal ndey Afrique mon Afrique Afrique des fièvres guerriers Afrique que sentiment grammaire au mais je ne mais moo na garde nu David Diop sa biir dëgg lëfal ndey jër mu laay saw rof ko sa lëfal ndey mu naan kiti saaya baloy saaya nduree tee tee sama si sama ruusi ah saw junne kur junne ku ci junne kar lekk sa lëfal ndey baax na ba booba